tey dañu daje gannaaw boo xamee ne benn session moom la parlement bi am muy session ordinaire unique tëj nañ ko ci fin juin waaye charte réew mi dafa may président de la République sañ-sañu su amee lu bees ak loo xam ne nii itteel na njëriñu réew mi mu sàkku gannaaw session ordinaire assemblée nationale pencum ndaw réew mi daje ci session extraordinaire su ca toftale ne dafa bëgg mu nekk liggéey bu jàmp dafay nekk de droit looloo waral ñu woo ñu fi tey bu ñëwee président assemblée day seet ndax li mu député yi teew méngoo na ak li ñuy wax quorum ndax assemblée am na sañ-sañ ak lim bu mat sëkk pour délibérer bi ñu wootee ci téeméer ak juróom fukk juróom-benn fukk ak juróomi député li fi teew téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la kon quorum bi am na mënuñu li tax ñu woo leen ci session extraordinaire bi mooy njiitu réew mi dafa sàkku yón nañu bataaxal wax bataaxal bi lu ca nekk mu ne kon nag ni ñuy liggéeyee mooy dañuy dakkal suñ jotaayu plénière bi dem def réunion de bureau suñ ca noppi toftal ca réunion conférence de président ba noppi door dem commission kon maa ngi leen di wax ne dakkal nañu réunion bi na ngeen déglu liggéey ko ci conférence de bureau de président gannaaw bureau de l'assemblée diggante bi groupe bu ne dem na daje man groupe bi ma bokk muy groupe benn Bokk Yaakaar daje nañu gannaaw boo xamee ne laata tey ñun toogoon na ñun député Benno toogoon nañu ak président Macky Sall muy suñu jiit te moo sooke lii président xamal nañu ne ay la yéwén pour méngoo moom ak gis-gisam mooy sukkandiku ci li mu def keroog le 3 juillet fii mu ngi nekk président dara luy niroog pëccëxoo ak intérêt boobam du tax muy def mbiru njuuj njaaj nee na dégg na waa parlement bi. ñi bokk ci famille am ak ñi bokk ci yeneen sensibilité yi parce que réew mi même bu ñu toogul waxtaan ñi ngi dialogue même bu ñuy dialogué par monologue parallèle kii wax fële kale addu fële ñi ngi wax ñi ngi dialogué nee na seet na ba seet moom lu jëm ci tas assemblée génn na ko retiré na ko kon li ñu war a waxtaanee danay soppeeku li ñuy waxtaanee léegi mooy li soqee ko ci dialogue national bi te def consensus waaye lenn lu ñu réwut a consensus du ko duñ ko waxtaanee mu ne moom comme fii ba 2 avril mooy président Sénégal te nekkul candidat dara luy ñu rek luñ ko mën a as euh, xasee mbaa yàq deram du ko fi def kon président bay falu ji kenn xamul kan la yàlla rek ko xam kooku bu faloo moom dana toog seet gannaaw bu ñaari atti assemblée yi mate lan lay jëfandikoo ci sañ-sañ bi ko constitution may lii mooy li xew fii li ci des man du ma nettali géntu géntu kenn ki ma bokkal néeg tëdd ci benn lal bi sax mënu ma xam géntam waxuma laa ki ma bokkulul parti bokkul maa ngi mu xalaat bokk maa ngi ni muy gisee man socialiste la te Jaurès doon wax ne être socialiste c'est être républicain jusqu'au bout moo tax ma wax la ci doxalin ci esprit lan lañ def tey fii assemblée ak lan moo fi génnee fii ngoon danañ xam gannaaw bu conférence de président li waxtaanee pare naka la ñuy liggéeyee ci commission technique ak naka la ñuy dellusiwaatee ci plénière bi waaye wax lu sotteegut kooku moom dëkkal sa morom. ci fenn bi rek te man du ma ko def ndax damay jox sama nit ñi naaw sama waroon nawle euh, wax ji daal dama ne lu jëm ci constitution bi moom tegal fële fétti boor fétti na boor salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sama yoon néew ci moom